Mbaye ñu ngi lay nuyu di la dalal ci Feeling Dakar tey nag ñu ngi la fekk ci studio Ndine Production euh, déjà naka ngay waajalee le 24. waaw asalaamaaleykum damay nuyu waa Feeling Dakar. Hmm. yow Bamba sunu xarit ak caméraman yi ak monteur yi. déjà ko ci directeur général bi ak maanaam. këru Feeling Dakar ñëpp ci kaw ba ci suuf. soo ko jox nag askan wi nga xamante ni tey waa Dakar ñoo tax ñu ñoo seetaan mën ñoo suivre. dëgg la partout dans le monde Sénégal li ko wër. Mhm. Europe Asie. Mhm. fépp rek ci àdduna ñi ngi ñi ngi li ngi jox ñëpp loxo à travers sunu frère Bamba. ci tele bu mag bi nga xamante ni tey jii mooy Feeñ Dakar. ndeysaan jërëjëf Mbaye Sy macha allah nuyoo bi euh, rafet na lool mais Mbaye Sy. Mm. Euh, bi nga toogee Benjamin ne daf lay euh, sargal déjà loolu lan la la def. waaw mbégte ak bànneex parce que tey wax dëgg yàlla bis la boo xamante ni xaj na ñi xam xam nañu mais ñi xamul rek ñoo xamul. Mm-hmm. Fallou Ndiaye bàyyiwul ba le 24 mu may soog a sargal ndax ñoo bokk dëkk ma rek moom ci sargal ma la dëkk ci jox ma cër la bokk ci katagal ma la dëkk. kon donc yaakaar naa ni lii nag lenn la rek ci yu nit ñi war a gis. ah am na yeneen yu muy def yu nit ñi gisul. maag moom benn lañu duñu ñaar moom du sama rak moom maag moom mën naa ne ay seex lañ. ndax yàlla sunu borom moo boole suñu lépp macha allah complicité bi am sama diggante ak moom parce que tey bu ma nee ñoo bokk day ak baay nit bokk naa ak day ak baay. te melut ak moom noonu. bu ma nee ñoo bi nit bokk naa ak nit musique te melut moom noonu bu ma sama doom la. ndax papa mag yaayam man lañ ko jox nit njur na doom sax te melut ak moom loolu ma macha allah daal sama diggante ak moom. Mhm. mbiru yàlla suñ borom la. Mhm. lu maanaam lu nit mënta gis la. dëgg la waaw des ko yëg la la Baye Fall boo xoon ni Cheikh Ibra du ku ñuy xool maanaam di ko bëgg. wala nga koy jàngat maanaam di ko bëgg. mais lu ñuy yëg la lu nëbbu la yàlla suñu borom la soob mu mooñ ko defee ko noonu. Mm-hmm. donc ñu ci sant yàlla di ñaan yàlla mu lafal ñu cat ba li nga xamante ni entamé nañ ko te mu ànd ak fekke ak tal ak gudd fan. ndeysaan def na ay témoignage sànq yu daw yaram ci yow ah. euh, vraiment nee na ki la jàngal métier rek amuloo fayam rawatina ñu dem ba mu yàgg nga yaakaar ne danga ko war a fay mu yëkkati doom tuddee la ko c'est-à-dire que euh, mu ngi wax ne bëri na loo ko lebal du sargal bi sax moo tax mu mën la fay quoi moom nee na mënu la fay déjà wax boobu lan la la def. non maag moom nekkal nekkul lebal bër wala fay bor. comme li comme li ma la rek lu lu nit mënta gis la lu nit mënta xam la. moom mënu ko wax man mënu ma ko wax parce que maag moom sax xamuñu ko parce que tey am naa ñu ma bokkal ndey ak baay te xaj na ñoom sax comprendre nañu ni ma mel ak moom moom it am na ñu mu bokkal baay tey ñooñ sax comprendre nañu ni mel ak moom tey lu ma ñëpp bëgg a ñaan xamuñu fu ñu koy jaar ci moom lañ koy jaar loolu nag mbiru yàlla suñu borom la yàlla suñu borom la soob mu defe ko noonu parce que tey mënoon nañoo bokk luñ bokk bokk bëgg-bëgg bokk ndey ak baay te yàlla du boole suñuy mbir. mais man xam naa ni yàlla moo boole suñu mbir. est-ce que lu mu tudd Serigne Fall. waaw loolu nag moom loolu moom moom da ko faa fekk gën koo dooleel. waaye nag am na leneen loo xamante ni mi ngi ci biir man nu ma mënta wax bokk. parce que xool naa ba xool xaw ma lu mu doon moom it moom it ba tey jii mënul ak nii la lii la demee. mu nekk lu daaw yaram ah. loo xamante ne bi franchement c'est émouvant Mbaye euh, booy wax sa digganteeg euh, Benjamin dañuy gis ci yow ci say bët ni donc ko bëgg la koo def ci sa biir xol la mais bés bi da ko bokk ak waal pratiquement daf ko nangu sax si yow. loolu nag moom naa sax mu waaye man du ma ko nangu ndax nag ñàkk fu la tolliwul bis bi maag moom ñu bokk ko moom mu bëgg a euh, groupement bëgg a lekk bis bi du ma ko nangu bu moytuwul booy laa koy booleel ñu koj ko ceeb xoolal buntu Pikine moom du dugg si bu naree ñëw booy yi dañuy bënn pëne yow nga bëgg a jóge West Far yow fekk sama fii sama fii ci sama gox ah bëgg maa bëgg ma bëgg a fëgg samay loxo ba mu set bëgg a nangu bis bi loolu boobu jaay lu doole la wala ëpp ma bës la wala ëpp ma xaalis la bu ci doon rek na wax saaf la wala lakk la Bamba day reer ba. ah mi ngi noonu ah c'est ah, sama bisu doom bi fekk si ma sama koñ sama feef ah bëgg koo nangu loolu mënul ne. <laughs> c'est vrai ah ji yéen a ji yéen ji moo ëpp ah, mais mu nekk ndeysaan euh, lu rafet loo xamante ne bi wax dëgg yàlla yaakaar naa ni euh, tey bés la boo xamante ne bi daal dina bëri émotion parce que foo soo taxawee waali taxaw lu bëri dina dina dina feeñ quand ci ci kanam Benjamin wax dëgg yàlla yéen ñaar ngeen nar a bokk bës bi donc dina nekk loo xamante ne bi mbay si lan lañ mën a xaar yow euh, Fallou moom nee na dinañ gis spectacle bu doy waar mais yow en tant que ku ñuy sargal aussi mën nañu xaar ci yow beneen spectacle. waa xam nga nag bis bi bis bi ah. bis bi li mu ëmb lépp dafa bari. parce que tey waxaguma man waxaguma Wally Seck. mais tey Fallou Ndiaye Benjamin tey moom rek ci bis. Fallou looy organiser dara rek. ak fi mu toll tey ci musique sénégalais ak li mu ma commencé marqué ci musique sénégalais. tey bu ko neexoon mu ni dama koy yóbbu grand théâtre bu ko neexoon mu ni damay xool ci saali mais moom xam na ni Pikine la dooree Pikine la tàmbalee. fi la juddoo fi la yaroo fi la màggee fi la mm-hmm. doonee Fallou Ndiaye ba ni mu déggee Benjamin mm-hmm. donc mu ni bala muy def dara bii di premier événement bu muy organisé bu mag mu ni Pikine gii la koy njëkk a marqué empreinte am man sax bokk naa ci ñu ni ko woon waroo koo def ci mbedd mi. Mm-hmm. mais moom xam na ni léppam ci mbedd mi la tàmbalee. parce que tey artiste boo gis rek bala muy dugg ci saal ci mbedd lañ ko njëkk a géewale fa la njëkk nekk di wane talaam ba ñëpp topp ko mu soog a dugg ak ñoom ci sàlli kon yàlla suñu borom la soob mu moom nag wax dëgg yàlla xale la boo xamante ni man damay soxla ay idéem parce que dafa yor idée yoo xamante ni macha allah yoom am solo la. Mhm. parce dara. toll ci war a mën a jël grand théâtre wala nga jël kin fat wala nga jël euh, euh, maanaam méridien wala fu la neex ci saal nga tant ko ci mbedd mi c'est parce que mu ngi delloo waa mbedd mi njukkal ba pare mhm. à commençant par ñoom léegi nag Fallou Ndiaye ak BSB famille rek ñoom rek xajuñu ci mbedd léegi nag mu toftal ci Mbaye si Ndiaye mi nga xamante ni tey magam la papaam la mhm. léppam la mhm. mu ni daf ko ci sargal def lu rëy parce que nag wax dëgg yàlla ku yokkul ku ne yaa wàññi. Mhm. te moom xam na ni li ma wax rek fàllu Ndiaye Benjamin rek ak ak ak ak Benjamin famille rek xajuñu ci mbedd. mais bu ci toftalee Mbaye si Ndiaye nga xamante ni tey doomu pikin la. Mhm. macha allah am lu mu def ci Pikine waa Pikine di ko xaar à chaque fois naan ko lu teree def lii. Mhm. lu la teree def lii tey occasion la tey. ci bis boo xamante ni dañ ma ciy sargal pour fépp fu sama soppe nekk. wala sama am di jàmm wala nit koo xamante ni tey bëgg nga ma wala tey ngay faramaareen occasion bi tey man damay ragal sax euh, euh, mbedd mi far nekk maanaam mbedd fermé. ah parce que Fallou Ndiaye rek xajul ci mbedd mi. waxuma laa nitu mbay si. mu teg ci nag mbay si Ndiaye. Mm. dëkk dëpp ki nag moom mooy Wally Ballago Seck nga xamante ni moom mooy borom saal yi mooy borom stade xam nga ku dem ba xajoo ci stade tey nga war a dajeek waa mbedd mi. man xam naa ni Fallou dafa baax rek mais man xam naa ni bis bi ah bu kii dana ma jaaxal lool de. bis bi stade la xajoon de. non sax ci mbedd yi stade la waroon jël. stade wallaay wallaay parce que parce que parce que dayu bés bi moo toll noonu. waaw léegi nag waa Pikine laay waxal. Mhm. di ñaax. Mhm. parce que tey ku dégg affaire bi rek. ba ci nit ñi war a ñëw danga nga naan est-ce que dina am sécurité ku dégg da nga naan est-ce que xale yi dinañ toog régler. ba ñuy war a ñëw def def tey waali ci mbedd kenn mësu koo gis wala boog bariwul luñ ko gis. ma leen di ñaax ticket yi génn na disponible na mais waxuñu rek jënd ticket rek dugg ci biir tax maanaam doo mën a toog di régler moom képp ak waali moom. Euh, demi jël laa ko tuddee am na bayre boo xamante ni fu mu dugg nit ñi dañuy ñambi ñambi kenn dootul toog mais ñu ànd ak dal. Mhm. toog Fallou Ndiaye def li mu war a def. Mhm. bu paree mbay si dolli leen ay termas yi bu ñu paree nag Waly sekk moom fu ko neex mu gën parce que moom walax jaañ la ci biir géej fu ko neex la yëngoo. Mhm. waaw donc ma leen di wax ni lii nii occasion la ci mbedd mi. waaye buñ ko defee fi mbedd. tey Waly. wala mbay si wala fàllu mënoon na woote. Mhm. ca Saalia. Mhm. wala ci stade ya kon ñu bari duñ ci mën am excès kon bu buñ ko defee ci digg rond point bi nga xamante ni tey mooy Dominique. Mhm. tey ñu bari juddoo fa foofu am symbole bu mag bu muy représenté. parce que diggante tey ku wax pikin ni tali bu mag. léegi nag rii di sëkk ko ak tali bees ak Icotaf. nit ñi ñëpp war a ñëw. wax dëgg yàlla xam na ni waa Pikine rek duñ fa nekk. waa Dakar dañuy ñëw ñeneen ak ñeneen dañuy ñëw lu mësta am Pikine moo fas yéene am Pikine may sensibiliser na nit ñi ñëw te ànd ak dal sañse ba mu baax sañse ba mu rafet te ñëw boole kook seetaan ak yére gi teggin ba nga xamante ni dinañ mën a commencé ci bisimilaay waaye terminé ko ak alhamdulilah rabbil alamin